ku kenn mënul ger waaye itam ku dul tendeefal benn yoon si li nga xam ne moom la yoon tëral ñaari kalifikatif yooyee moom la ñu féetale ki nga. li ñu mën a def ci àdduna bari na feneen fu ñu mën a ne xam leen ni suñu xel ak suñu xol mu ngi ci armée. ay at ci ginnaaw général biram Diop. doon firndeel yéene gi nga xam ne ni moom la am ci l'armée bu Sénégal gannaaw bi nga xam ne ni dem na à la retraite mu di yéene bi nga xam ne ni nguur gu ñu fal yees da ko jox sañ ngir mu mattal ka général Birame Diop ministre des forces armées général Jean-Baptiste Tine ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. ki nga xam ne ni moo nekkoon état-major bu l'armée bi dellu si waat moom ak keneen ki nga xam ne ni moo ne woon au commandant bu gendarmerie nationale di Jean-Baptiste Tine. j'entends vous commander avec justice, justesse et mesure. ñaari généraux yooyu nag yàgg xar seeni tànk tubéy yi ngir luy jëmale l'armée bu Sénégal ci kanam naam yëngu-yëngu yi nga xam ne ni jot na fee am ci atum 2021 taxoon na ba ñoom ñaar yëpp ñu daal leen fi jële mu jot a jaar ci académie royale militaire bu Maroc Jean Baptiste Tine am ci gendarmerie nationale ay ndombal tànk yu bare balaa ñu ko fal o commandant bu gendarmerie nationale toftal ca directeur bu justice ci noone lañ ko mujjee limogé général Moussa Fall daal di koy wuutu ci bile poste ñu nemmeeku ni bi nga xam ne ni moom la doon dem delloo njukkal bi nga xam ne ni moom moo ci waroon defuñu ci woon lépp Biram Diop mi nga xam ne ni ci jamono jooju moom it ci la jóge ci boppu l'armée bi moom jot nañ ko delloo njukkal gannaaw bi nga xam ne ni dem na à la retraite mu bàyyeekoo ci Britannique militaire ak bu Maroc chef d'état-major ba woon jot a am ay ndombal tànk yu bare ci biir l'armée bu Sénégal waaye tamit ci bitim réew ñaari jàmbaar yooyu bàyyeeko ci Sénégal ci benn waxtu Jean-Baptiste Tine ñu def ko ambassadeur extraordinaire bu Sénégal ci wetu njiiti réew bu Russie Biram Diop moom dem wutali ji Nations Unies bi nga xam ne ni fa la woon boobu ba léegi gannaaw bu ñu demee ñoom ñaar daañu dellu ci waat ci réew mi bi nga xam ne ni fal nañ leen ci gouvernement